nag li mu bëgg jamono ji mooy jokkoo kii di Bassirou Diomaye Faye fileeg njeextalu ay bés bi yéene kaay bi ne projet boobee Macky Sall fas yéene doxal la ko tax a jug nag bokk na ci partenariat financier boo xam ne rek dafay équilibré ci diggante nord ak sud bi waral ba yëglekaay bi di laaj nag ndax lu ñu mel du indi ab lien ci diggante Macron Macky Sall ak kii di Bassirou Diomaye Faye yër leen bi la yëglekaay Sud Quotidien moom jamono joojee nag addu jëmale ci wàllu mbay mi ak souveraineté alimentaire mu ne Diomaye Faye nag jamono ji bëgg naa relever défi bi nag def ci lu raw loo xam Abdoulaye Wade ak Macky def nañ ko ci nag te mooy fexee saafara nag jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko ci wàllu sécurité alimentaire ndax politique yi nga xam ne rek jot nañ ko fee taxawal ci nguur yi fi jot a jaar nag gis nañ ne dañ cee tële bu baax a baax nguuruk Abdoulaye Wade nag tànnoon na fi lii nga xam ne rek moo di plan REVA ak Guana Macky ñëw daal di ñuy indil nag lii di PRACAS ak plan stratégie nationale pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire waaye njiitu réew mi mi nag di Bassirou Diomaye Faye nag ci programme am nag fas yéene naa taxawal nag ab modèle économique endogène yëglekaay bi nag njortu ne boo moytuwulee nag mën naa def lu raw li fi ñi nga xam ne rek ñoom ñoo fi jotoon a jaar daal di amal ci wàllum sécurité alimentaire yemook l'observateur moom dellu soit ci wàllu emploi des jeunes ak dundu gu cher gi lii ay bomb yoo xam ne rek jamono ji mi ngi ci loxol jomaay ab président bu taxaw fas yéene wut ay saafara ci digg yi nga xam ne rek doon na ko digg askanu Sénégal ci biir yëglekaay bi nag spécialiste yi ñoom ña ngay xàll yoon woo xam ne rek buñ ca jaaree ñoom kilifa yi Sénégal daañu mën a wut ay saafara nag ñeel jàmbat gi nga xam ne moom la askanu Sénégal dëkkee laas yëglekaay dellu siwaat ci wàllum éducation refondation du système wàllum révision yi nga xam ne rek war nañ koo amal ci curricula yi nag appliqué nag li nga xam ne moo jëm ci wàllu assises yi nag loolee bokk na ci priorité xam ne rek moom la ñuy xaar ci régime bi nga xam ne rek Bassirou Diomaye Faye moom la jiite gouvernement bu Sénégal fas yéene taxawal nag équipe boo xamante ne nii nag ñëpp koy xaar jamono ji Walf Quotidien faylu ko ne formation bu premier gouvernement bi nag bokk na ci li nga xam ne moom la askanu Sénégal di xaar jamono ji Diomaye ak Sonko nag fan la ñu war a commencé loolee la yëglekaay bi di samp ab laaj source a nag ci composition gouvernement bu yees bi nga xam ne rek moom la jomaay fay war a taxawal yéenekaay bi ne nag dina ko amal ci mode fast track addu jëmale ci leneen mu soxal defet bi nga xam ne rek waa Benno Bokk Yaakaar am nañ ko enquête yëglekaay dellu siwaat si nag daal di càmbara lu waral candidat Benno Bokk Yaakaar boobee lajju ci élection présidentielle yi ñu doon amal yéenekaay bi ne nag defet boobee nga xam ne rek moom la Amadou baa am nag ba nëgëni si nag mënee suñu ko wanaasu li waral naqaru xol gi nga xam ne rek rek kii di président Macky Sall am na ko jëmale ko ci kaw candidat bu Benno Bokk Yaakaar yéenekaay bi di xam ne nag ne moom dafa lànkoon bañ a défendre bilan matériel bi nga xam ne rek président Macky Sall amal na ko ci bopp réew mi te loolee nag erreur bu mag la vide de communication bi ñu nemmeeku nag ci politique bi nga xam ne rek doon nañ ko amal ci kaw Amadou Ba loolee lépp yëglekaay bi jàpp na nag bokk na ci lu sooke seenuk ñàkk ci élection présidentielle yi 24 heures dellu si waat ci résultat provisoire yi nga xam ne rek moo tukkee ci élection présidentielle yi yéenekaay bi ne kay moom fépp la daal di raafale rek ci kaw Benno Bokk Yaakaar ak waa taxaw Sénégal coalition Diomaye président nag am na lu ëpp 2886 voix ci département bu Ndakaaru Amadou Ba am lu ëpp 118000 voix Khalifa Sall moom am 24000 voix bu dee ci département bu Pikine nag Bassirou Diomaye Faye moo fa jël xaw gàddu gi ndax am na fa lu ëpp 157000 voix Amadou Ba nag daal di am lu ëpp 63000 voix yéenekaay bi di bés bi le jour ne APR nag boo moytuwulee la dal waa parti démocratique sénégalais nag jamono ji mi ngi leen di yoot élection yooyee nag organisation bu leer la ñu ko amalee nag bu ñu sukkandikoo ci observateur yi nga xam ne rek démb ña nga doon amal ab ndaje waa union européenne nag ne élection yu jaar yoon la ñu amal ci réew Sénégal CEDEAO xam ne ne électeurs yi nag ñoom ñëpp amal nañu nag seen wote te amuñu ci benn jafe-jafe addu jëmalee ak liberation ma ngay dellu si ci coow li am ca banque Orabank cent millions yoo xam ne rek dañu ko luubal ci ab compte Wave yéene bi ne koppar yooyee nag ñu ngi ko daal di séddale ci 14 compte yoo xam ne rek dañu ko ubbi ci ay banque fukki doomi ak benn yoo xam ne rek daat nañ leen leen di suspecté jamono ji nag bokk na ci chef agence bu Ora Bank ba nekk ca jam ñaajo benn membre bu conseil d'administration bu mutuelle Mexi ak benn chef d'entreprise ñoom ñëpp nag jamono ji ña nga ca loxol dikk jeexale yëglekaay yi ci mbir mu doy waar xewee ca Bignona Amadou Saliou Diallo mu di benn conducteur bu moto Jakarta yéenekaay bi ne benn waay bu mu yeboon nag moo ko daal di faat ba noppi nag yóbbu motoom daal di jël nag gànnaay bi mu ko fàttee teg ko ci wetam mbokk yi léegi noonu fas yëglekaay jàmm ak jàmm société nationale